ne ñu bëri ñaawlu nañ ko noo ko jàngatee. waaw du ko rafetlu kenn du ko wax dëgg yàlla bëgg dañ koy condamné. Mhm. encore une fois Sénégal ñëpp ko bokk kenn ëppale wu fi kenn lara ki nekk ci pouvoir comme ki nekk ci euh, opposition da nga war a nekk à l'aise mener say activité te dara dara dara war la inquiété te nag wax dëgg yàlla liy xew Ziguinchor nii euh, dafa nekk rek les prémices. boo xam ne bu ñu ko saafarawul ni lañ nar a nekkee ak élection locale yi nga xamante ni moom lañ jëm man daf may fàttali rek euh, tournée politique bi nga xamante ni président Macky Sall amaloon na ko ñu gis ay nit yoo xamante ni dañ leen attaqué attaqué nañu euh, le président de Gëm sa bopp attaqué nañu aussi euh, Fatoumata Ndiaye bu Fouta Tampi nga xam ni wax na ko ci rajo yi que ni dañ ko attaqué te tout simplement da doon manifester man nag dama jàpp ni opposition comme kenn ku nekk war nga mën a amal sa activité te encore une fois unanimité Fatima kenn mënu ko am am fenn kenn ku nekk war nga mën a def sa yëf keneen kii warta yàqal moroom parce que kenn amul droit boobu créer instabilité mhm. dans ce pays encore une fois na président Macky ak ñi mu àndal parce que c'est président de la République donc à chaque fois bu problème amee moom la ñuy mhm. na wax ak nitu yoon yi na wax ak justice bi ñu def seen liggéey su ko defee sénégalais yëpp jàpp ni ñoom ñëpp fii Sénégal benn lañ amul ku am ndey ak ku amul ndey mhm. Mansour dégg nga yi nga xamante ne bi Ousmane wax na ko euh, jëmale ko rek ci takk ji waroon nañ ko woon dépassé. Euh, du ma wax ay takk der Macky Sall. Mhm. mais dinaa wax takk der aussi que buy fitna yu mel ni bu amee ñu gaaw situer ay quelques responsables ci biir manifestation yi jàpp leen. pour ñooñu ñu mën a situer dëgg-dëgg ñan ñoo leen sant loolu. xam nga bu fekkee am na manifestation xeexoo yu mel nii ba am ñu ci jëm paak ba dégg naa sax bal tàkk na fa. Mhm. te mënoo wax ku ñu teg loxo. ça pose problème. wala nga xam ne boobu police communiqué kul ci ba xam jàpp nañu ay nit wala déet xam nga dafay poser problème donc euh, li jàpp ñu doon manifester ndax bëgg ñu dugal leen ci liggéey jàpp ñu doon xeex bay jamantey paaka moom moo gën la xel gën a mën a nangu et élection yi ñëwagul lan mooy fii fiyeefu Doudou Ka la wala fii fiyeefu Bàcc Njaay la wala fii fiyeefu Masamba la Sénégal kenn moomu ko mënuñoo te euh, Bougane demoon na fi côté Fouta am ñu ko fay song juñu ne fi lu ñu koy waajal Casamance song lañu Ousmane Sonko Casamance ba tey am na suñu ay mbokk kenn ku des ci prison bi ci waa PUR jamonoy élection présidentielle yi ci bakkan bi rotoon c'est-à-dire que kii yee fitna lu sewet ci boppam dañu koy yan ci ki fayu te fekk na dañu ko tooñ loolu nag police ak gendarmerie mais dafay aju ci état bi mm-hmm. état bi mooy jël ay responsabilités pour leeral lu mel ni lu ko mooy fitna dina am faneen mm-hmm. nit ñi faw ñu campagne nit ñi faw ñu dox fu leen neex kuy duutu ka ak ay militant am kan mooy bàcc njaay ay militant am yow da nga gis yoo xamante ne daaw daaw jéeg bu ñu musaan génn kenn du leen topp ñu dénk ñu jël Sénégal gépp moom lu askan wi moom dénk la ko nga daal di soppeeku di doxal ni mu leen neexee jël ay nit ngemb leen jël ñetti booy fay leen ku fa jaax ñu sànni la xew ku fa jaax ñu saaga la créé ay ay ay ay ay ay réseau nu ma koy wax li nekk ci whatsapp yi ay groupe whatsapp di la saaga comme yow yow amoo ndey ak bàyyi. Mm-hmm. di la wax yu ñaaw yoo xam nit ñi di ko cautionné di ko cautionné euh, fa mu jëm nag du doon fa sedd parce que gis nga dof boo gis ci kër la génne. Mm-hmm. gis nga li ñu def ni Ousmane Sonko. Mm-hmm. buñ ko tollantiwaatee di nga gis buy te du Ousmane Sonko dong bépp kuy képp kuy génnati. di nga jël sa ay motuwaay parce que Sénégal ñi ko jiite moomu ñu ko nañ doxal yoon nit ñi topp seen ginnaaw. ah. mu ngi caaxaan baaxul mu ngi noonu euh,